mbokk yi tewlu ak setan ak baye xel sen sen bu mag bi di cey Dakar ñi tewlu ci site bi ak ci sen bi ñi ngi leen di jare sen émission ji yu xam-xam ngeen ci and ak señ Mortal tawfiq chaque semaine dañu waxtaan ci ben sar alquran dañu waxtaan ci ben febar bu dal doom adama yi dañu waxtaan ci ben garab ben plante bo xam ci ci plante yi dañ ci waxtaan inshallah allah ci kat yàlla yi dañu wax ci actualité wax actualité bobu niñ koy gisé benen bi musibe bobu di actualité boobu ku ci bëgg a mucc daañu ci may ay xam-xam tey damay ibbi émission bi ci mbirum Mouhamed mooy americain boobu tuub dugg ci islam nekkoon ci Kaolack di taalibe Baye Niass waaye tamit jokkoon ci imam Hassan Cissé ñu rey ko reynu ñaaw woowu mu dee war nekk lu metti askan wi metti nañu loolu ba fa metti yam waaye liñ ci dolli mooy képp koo xam ne kii bëgg musiba yooyu bañ laa dal na ngay def saa boo xëyee suba gi boo jullee ba sëlmal nga werd astaghfirullah cent fois sallallahu ala muhammad cent fois nga werd xasbunallahu wa niamal wakilu xasbunallahu wa niamal wakilu 450 bu fekkee am nga temps boo amul temps nga werd ko 111 muy téeméer ak fukk ak fukk ak benn képp ku ko def yàlla dana musal ci musiba yooyu hasbunallahu wa ni'mal wakilu su ko defee kon tey bu ñu diggee ci émission bi war a waxtaan ci wàllu feebar feebar bi ñu tànn tey muy feebaru tële góor gu tële ci wàllu sëy wala nga ne góor gu néew doole ci wàllu sëy lan moo koy indi góor bu fekkee sa bu fekkee sa deret circulé wul ni war a circulé circulé ci yaram bi deret ji doxut ni mu war a doxee man ngaa amee tële ci wàllu sëy tox cigarette dafay indi tële ci wàllu sëy naan sàngara dafay indi tele ci wàllu sëy koo xam ne kii dangay faral di naan garab yi faj allergie lu bari dafay indi tële ci wàllu sëy koo xam ne kii da ngay taxaw di tur ndox tur taxaw di tur ndox dafay indi tële tële ci wàllu sëy masturbation góor gi wéet di foyee kanamam ba yëg boppam dafay indi tële ci wàllu ci wàllu sëy koo xam ne kii da ngay jëfandikoo lekk yi bari suukar maanaam léeg-léeg da ngay gis koo xam ne kii fu mu toll day jël day faral di jëfandikoo mango ju bari orange ju bari pomme ju bari bu bëree rek suukar soosu baaxul dafay indi tële ci wàllu sëy ak ñi nga xam ne si dañuy jëfandikoo naan gu bari suukar yenn boisson yi nga xam ne si dañu koy jaay ci boutique yi nga xam ne day am gaz gaz boobu ci nekk baaxut mën na yàq reewu doomu aadama bi mën na yàq sidit doomu aadama waaye suukar siñ ci def baaxut dafay indi tële ci wàllu sëy bu dee góor nga kon nañ koy bàyyi xel ak it yenn lekk yi lu mel ne gâteau bu bari suukar beñe bu bari suukar yooyu dafay indi tële ci wàllu sëy feebaru diabète yi dafay indi tële ci wàllu sëy diabète type 1 ak type 2 ñaar yëpp dafay indi tële ci wàllu sëy moom itamit feebar la boo xam ne si bëri nañu sonal ci askan wi rawatina ñi eh, bu njëkk da nga gis mag ñi dañ daan dem ba am téeméeri at wala ñu dem ba am soixante quinze ans quatre vingt dix di ngénte léegi xale yi ndaw lay dal parce que lekk yi yi ni lekk suukar su bëri si baaxu ci. beneen bi it li ñuy wax cholestérol dafay indi tële ci wàllu sëy cholestérol mooy koo xam ne kii sa yaram dafa bëri suukar su bëri wala xorom su bëri wala diluñ ju bëri wala graisse gu bëri. ñeent yooyu bu yàggee dafay indi cholestérol cholestérol ci deret doomu bi lay lay nekk fatt ko mooy tax ni nga war a seeyee doo ko mën a seeyee kon képp koo xam ne kii tële ci wàllu say mi ngi lay sonal mën nga woote ci numéro boobu di jàll ci kanam écran bi 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54. li ma ci dolli mooy cat ñu bëri dañ ne cat bu rëyul semal cat lu am la ndax ñaari façon cat mu am cat làmmiñ ak catu bët. cat nag ki mu nekk ci yow ni nga koy xamee mooy cat dañoo wax ne ki nekk ci loo yaakaar mu tas loo dugg mu yàqu lu la waaye dig doo jot man nga séq ak ma benn projet dem ba ci biir kan ko séqaloon lekk xaalis bi wala mu nax la wala mu roccee ku bàyyi loolu lépp catu koy def cat dëgg sax maa ngi ne naan bu semal mooy bu reyul indi la ay jafe yoo xam ne si dee sax moo koy gën léeg-léeg nga koo xam ne kii li muy dund daanaka dee koy tane kooku catu koy def cat nag ñaar la bët ak làmmin ayin ak famm xam ngeen ne sëñ Tuubaa xasida googu mu bind di sindiidi yallaahu bil Mustafa sindiidi yallaahu dem na ba ci biir mu ne wakun moisan lana min sarri si xasadin max sarifam min wa saril ayn yallaahu wa sarri sixrin wa saril xalqi insihim wa max jinnihim wa sawaati sum yallaahu suñ tubaab neen yàlla nag mu musal ci ayu bët ak ay lamin nag mu musal ci ayu jinne ay seytaane ay nukku ñuul ak ay nukku weex ak suñ tubaab fi mu toll ci yàlla bu waxee loolu rek xamal ne kon lamin baaxut si daa jamale si ne naus billahi min saril kufari wa min saril nasara wa min saril salatini yow yalla nak mo musal ci ayu nit ku wex ak ayu nit ku ñul nak mo musal ci lepp lu bon ayu jinn ak ayu shaytané loolu la alaaj malik wax dal ne nak famin wa aynin ci côté beut ak ci côté lamin ñaari xeet cat yooyu moo am catu ak catu lamin moom kim nek mu ci yow man nañ ko safara am nañ ci safara bo xam ci bu mu la ko joxee boko sango sangoo ñaari fan day da deñ waye bu mu paré dañ lay jox ndomba go xam ci dang koy tak ndomba gi juróom-ñaari gaaw lay kii aw ndomba gi du wax commencement bi ba fin bi du wax boo ko takkee cat dootu mën ceew dara muy catu bët ak catu lamine dootu mën ceew dara soo ko defee kon tey ñëw ci garab gi ñu war muy garabu pom pomme nekk na garab goo xam ne si bëri na ay secret yu ci nekk ndax pomme dafay dindi stress koo xam ne kii da ngay xalaat xalaat yu bëri pomme daf koy dindi koo xam ne kii da ngay musicien nga waykat nga wala mbër nga da ngaa siiw toujours da nekk ci mbooloo wala nga nekk politicien wala nga nekk journaliste koo xam ne kii da nekk ci mbooloo rek bëgg a ñemee mbooloo booy lekk doomu pomme bi da ngay ñemee mbooloo ba tey pom képp koo xam ne kii danga koy lekk dafay leeral ay bët moom pom xob yi képp koo xam ne kii maanaam yàlla dafa dogal da ngaa amee feebaru seere xobu pom boo ko wutee nga baxal ko segg ko boole kook li ñuy wax ñandam doomu ñandam ngay boole ak xobu pom yi baxal ko ba mu baax nga segg ko nga di ko naan boo añee nga naan ñaari kaasu acété boo reeree nga naan ñaari kaasu acété boo ndékkee nga naan ñaari kaasu acété loolu lii ku koy def yàlla daf lay dimbali ci feebar boobu mooy ñi xam ne si dañuy faral di seere képp kuy seere defal loolu boo ko defee dana saafaraw ci kàttan yàlla ak mbaaxam ba tey xobu pom bi képp koo xam ne kii maanaam da ngay bëri looy miir na wut xobu xob woow wi nga boole ko xobu limon bu wow dëbb ko def ko sunguf chaque suur boo xëyee nga fexe comp ci suuru dafay dindi miir da ngay gis koo xam ne kii léeg-léeg day taxawam yàgg mu jekki-jekki di miir wala koo xam ne kii dafay tayal wala kuy sonn boo defee loolu day daal di saafaraw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bi isnillahi taala ndax yàlla moo wax ni maa farat naa fil kitaab min shay'in téere bi bàyyiwul dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim waaye yàlla nee na it min sajaratin mubarakatin zaytunatin man yàlla maa barkeel garab yi rawatina garabu zaytun bu waxee garabu zaytun wax na garabu guro garabu mango garabu pomme garabu orange garabu new bu kàdd garab yooyu nga xam ne si lépp ay secret la garab gu nekk am na reen am na xas am na xob am na doom garab gu nekk doom ba la muy jariñ bokkut ak xas ma la muy jariñ bokkut ak reen ba la muy jariñ bokkut ak xobu garab ba la muy jariñ loolu lépp kon na ko nit ñi bàyyi xel kon seen émission jotaayu xam-xam ngeen ci ànd ak euh, sëñ Mor Talla Tawféex fii ci seen seen mag bii di ci Dakar su ko defee kon maanaam di bàyyi loo xel ñëpp ne nan faral di génne saraxu so, képp koo xam ne kii man nga ko maanaam na nga def sag ajjuma booy xëy nga wut mbuus soow bu ñaar fukk nga jàng ci juróom-ñaari faatiya sarax ko jigéen ju yelwaan sarax boobu tamit lu baax la ci musiba ak yenn balaa yi accident yu bëri yi musiba yu bëri yi dee yu bëri yi lakk yu bëri yi mënoo lu mat ñu ne fenn lakk na rey nañ nit pikin rey nañ nit géejawaay rey rey yooyu ku bëgg a mucc ci loolu it ba tey nga génne sarax soow boobu moo wax lu ci am njariñ la waaye tamit képp koo xam ne kii yàlla dafa dogal bëgg nga am laneen loo leerlu ci émission bii di ci xam-xam mën nga woote ci numéro boobu di jàll ci kanam écran bi benn numéro la moom it whatsapp la 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 jërë ngeen jëf ba beneen émission yu taayu xam-xam jërë ngeen jëf ak sëñ Mortal Tawfeex